alors ñu ngi toog ak nga xamante ne moom mooy Abba euh, di frère Abba moom mi nga xamante ne voilà moom moo am blessure nii ci tànk bi Abba ñu leen waaw euh, ñu ngi leen di jaajëfal leen di bu baax waa ndax seen acte yooyu noonu di remercier tamit sama frère yi as yooyu tout noonu ak sama famille bi moom ba ma dalee gis naa ñi ma taxaw ak yooyu noonu tout ça leen jaajëfal bu baax waaw. mais Aba sa papa Sang mi ngi wax ne yow da nga bëgg football danga bëgg AS Pikine maanaam da nga xobee si équipe bi quoi donc yow chaque match da ngay faral di dem même bu dee suñu la moom billaahi te à chaque fois boo xoolee la plupart ñu ci ëpp nag man pour ñoom man du ma dem stade et tout ça yeneen mais à chaque fois man dernier moment lay demee quoi da may xaar ba nit ñi di calme ni ñi di yuux yooyu noonu mu jug nànk dem seetaan après ñibbi si waat noonu laa ko doon jàppee mais football moom sam passion la wax dëgg fa yàlla léegi nag AS Pikine tamit dama ko bëgg noonu à chaque fois chaque match moom daf may fe fekk foog fu munti dem xanaa kay mu doon loo xamante ni day fekk may jàngi yooyu noonu wala ma am urgent liggéey wala may sax ma mooy tax ma arrêté dem liggéey wala ma dem jàngi soogay ñëwaat noonu laa ko doon jàppee quoi. dañu wax ne bi amoon na amoon na tuuti coow ale bi demoon bi non non dew moom. avec demoon daf ma fekkoon ci ay devoir et tout ça noonu la tax dew ma woon te ba mu ma affaire yooyu noonu ma ne kon yéen foofu policiers yi dañ leen dañ leen kii woon quoi dañ leen seetaan ndaxte dañoo jàppale waa Jaraaf ñu ñëwaat ba fii gars yi defaat ñu loolu man la même chose man foogoon naa ne bu gars yi di ñaari équipe xeex yow boo ci mënee def dara la moindre des choses yow da ngay disperser ñaari foule yëpp n'est-ce pas mais déedéet da nga da nga jël foule bee ne ko ci kanam di dóor ay lacrymogène beneen foule bi léegi en même temps ful bee di sànni xeer ngay défendre ful boobu noonu waxoo ko jéemoo leen a disperser jéemoo leen def dara ñun ba noonu yoon bu ñu jaar policiers yi ne ñu non fii mënoo leen fay jaar par force nii ngeen di jaar dévier ñu par force dóor foofu lacrymogène ñu daw jaar nii ñu dóoraat foofu lacrymogène ñu def nii yoon bu ñu jaar rek ñoom am nañ ñoom ñu ngi fa noonu la ñu jàppee woon. mais mais boo jaraaf bi mas bi jaar dañoo taxaw wala dañoo taxaw di xeex ak te dañoo taxawoon ci stade bi ndaxte xamoon nañ lu nekk ci biti man bëgguma woon génn quoi mais après policiers yi génnee ñu booy bàyyi booy bàyyi waa booy jaraaf yi ci biir après quelque temps ba mu génnee ñuy man ak sama groupe bi ñuy ànd di ñibbi ndekete booy jaraaf yi génn nañ bay wiiri di dóor ay xeer léegi policiers après ñun nag boobu man gisu gisuñu woon policiers yi xam nga mënu bu fekkee ni sa entre moroom góor ñu lay sànni xeer mënoo taxaw di ko seetaan boobu policiers yi newuñ fa après ngay résister tuuti après tu jékki saa rek policier yi ñëw di dóor lacrymogène taxaw ci ginnaaw booy jaraaf yi di dóor lacrymogène yi booy jaraaf yi di sànni xeer léegi nag noonu gars yi dañu disperser di ñu di ñu jaarloo yoon bu leen neex ba ak yoon boo xamante ne ñoom ñoo fa nekk ba noonu. ba noonu mais da taxaw jaaxaalu ak gars en fait dañoo dem ba. affaire bi di commencé guddi léegi ma ne non man xaar ma jéem a jéem a xool yoon bu ma mën a jaar boo xamante ne dinaa mën a ñibbi ak yeneen ful yi fa nekkoon yoo xamante ne dañoo bëggoon ñibbi amuñu woon yoon ndaxte gëlëm nañu tout ça léegi ñu xool yoonu ndam bi bëggoon am ñoo xamante ne dañoo bëggoon tàllal yoonu service d'hygiène bi ba yegg léegi man nag su ma tàllaloon noonu xam naa ne dina am sens pour dem ñuy demee noonu heure policiers yi ñu ngi embuscade côté yi. am ñu ñëwee suñu ginnaaw am ñu ñëwee léegi booy daw bu ñu dawee mu yàgg nag am na policier bu am na policier yoo xam ne dañuy jël seen arme di tafu di dóor nu mu leen neexee waa ji day chargé nu mu ko nu mu gën a gaawee wari di dóor te ñun nu ñuy dawee nag waa ji jàdd naa ba dóor man sentiruma ma ko woon ba mu ma ba mu ma dalee ndaxte affaire dal na ma ba ma sentir sama tubéy bi am na lu ci dal am na benn gaan boo xamante ne nii c'était la première fois moo koy gis je pense bien moom moo arrêté ne ma booy day mel ne da ngaa gaañ ma ne ko en fait wax nga dëgg kay mu toog loo ma ma toog mais ins boobu noonu booy booy dawuñu booy seetaanuñ ma foofu dañoo tourné dem taxaw sama kanam pour bañ policiers yi excès tout ça ma taxaw booy ñëw defar ma am benn booy boo xamante ne fulaaram la jël takk ko sama tànk bi pour empêcher hémorragie bi di gën a bëri beneen booy bi takkaat simmi yéreem takk ko noonu lañ mujjee dem dem ba ci clinique bi yooyu noonu. clinique bi noonu. d'accord balaa ñu ñëw si si clinique bi yow ki la doon ki ki la doon visé di dóor. yow ndax yéen ñaar mën na 100 wala décalage bu euh, ñaata ñaata wala. je pense pas que nañ de ak dëgg fa man moom ins bu muy jàdd ak man ins bi may ja ins may daw di jubal ndax man dama daw bàyyi benn koñ ak ñu doon daw ñëpp ndaxte ins boobu noonu nag lañ ñoom di jugee ci benn koñ bi di jàdd waa ji dafa jàdd man fekk na man jubal naa tuuti rek rek après affaire bi daal ma mais xam naa ni moom bu guddee ba gudd di mat ay 100 mètres yooyu noonu ma wax dëgg fa mais après aussi ñu ngi wax ni bal réel la ñu wax ne arme à bal blanc la yow lan nga sentir sa man moom man moom kiiwuma affaire yi quoi xam naa ni moom li ma moom bal la moom mais mënu la wax bal blanc la wala bal réel la après yooyu noonu kenn waxuma ci dara kenn waxuma ci lu leer. médecin yi aussi wax ñu médecin yi tamit waxuñu ma ci lu leer. bu ñu koy génnee ndaxte waa ji docteur bi loxoom la doon jël yooyu noonu doon xool après mu anesthésie affaire yi fët fët je pas sentiratuma dara sama tànk bi yooyu noonu à part ba mu koy ñëw daal lay sentiraat affaire yi. par exemple fii fii la affaire bi dafa laala dafa frotté quoi. dafa fii nii quoi mais bii la gën a def fële bu gën a rëy bi quoi. bii hmm. nii la def lu rëy après hmm. yooyu noonu bii la gën a méttee hmm. mais bii moom ñëwu ko ndaxte bii góom rek la def comme genre góom la mais bii la gën a gravé. bon après comme ni ko pap sa papa bi waxee donc je pense que moom si côté boobu je pense que yéen a fu ngeen di waxee ndax lu ma expliqué daanaka yow loolu ngay expliqué mais si lu ñuy ñëw mooy par exemple yow nii nii euh, ndax amoo peut-être ay regret ci waroon moo woon dem ak yooyu ndax nii nii da ngay xaw am jafe-jafe dox ak yooyu en attendant. waaw fa nag du ma am regret quoi mm-hmm. eh, dañuy sant yàlla rek ndaxte li la waroon dal. Mm-hmm. moo lay dal ci li nga bëgg rek ci la lay fekk waaw dëgg fa yàlla nag même su fekkoon ni xamoon naan daf ma war a dal teewul ni teewul ni damay dem tamit li la war a dal ala kulli aali ak fu mu la munti fekk même su fekkoon ni rëccoon naa foofu bu ñëw ba taxaw suñu buntu kër su ma waree dal tamit fa la may dalee mais dañuy sant yàlla rek te nii la mënoon demee nii la mënoon nii la mënoon jaare quoi ba atteindre ma su fekkoon tamit damay dem ba màgget tamit mooy soog dal tamit noonu la mënoon demee mais c'était à, éviter en fait est-ce que jaroon na ko quoi jàkkaarloo leen ni di ko surtout yéen xam da ngeen doon xool yoon boo leen jaar pour ñibbi. dëgg la moom ndaxte. la faute à qui. la faute c'est policier. boo xoolee naka ngay mënee téye arme à feu. yow ful ful la gaz lacrymogène rek doy na ci pour disperser leen. mais c'est pas la peine ngay jël ay armes à feu di ko viser ci ay ñoo xamante ne imagine imagine bu nekkoon sa doom. keneen di ko dóor yow lu mu déeree boo gisee dinga dem ba ci moom fël loxo bi wala nga nangu arme bi mais déedéet defoo ko danga ti danga xool sa moroomu raq wala sa moroomu doom nga xool ko mu neex la nga dóor ko ko affaire bi ñëw dal ko gaañ ko léegi yow yaa ngi toog conscience tranquille amul dara amul dara lay métti amul dara loolu rek. yoon ak yooyu jot nañu si wax ci wàllu yoon dégguñu ci dara ndaxte man dama jàpp ne même bu ñu duggoon ci wàllu yoon tamit affaire yi contre x lay doon fii Sénégal moom mooy loolu quoi te xam nga rek affaire yi mooy loolu ñu mënee ne garaawul quoi mais waxuñ garaawul noon quoi yàlla baax na quoi dañoo xam ne du mujj fenn loolu la nag da léegi da ngay gis koo xamante ne day tiré li ko neex ñu vidéo ko te du dara du mujj fenn. en ku kenn gisul en fait. voilà. ñu ngi lay ñu lay masawu bu baax a baax euh, comme ni ko paa bi waxee rek waa AS Pikine yëpp ñëw nañ fi donc euh, ne serait-ce que euh, déplacement bu ñu def c'est à mm-hmm. moom surtout supporters yi et mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne ni victime nañ ci yenn affaires yooyu noonu maa leen di ñoom tamit non xaw ma boo xam ne am na ay mais am na ñu ci jàppoon ko mais bàyyi nañ leen et tout mm-hmm. léegi ñooñu moom maa leen di jaajëfal ñu fi ñëwoon. ak ñu fi ñëwul woon ak ñoo xamante ne nii yónnee nañ seen wax ay tout noonu di ma masaw maa <coughs> maa ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp di leen sant bu baax ndaxte ba ci yi sax liñ def yëpp wax dëgg fa nag amu seen fay mais sant yàlla bu baax rek di ñaanal di ñaanal tamit ñëpp ki nga xamante ne nii ñëw na fi woo na ma wala envoyé na ma message gis naa lépp tamit gis naa samay mbokk gis naa samay nit gis naa ñëpp te tey ji mënoon naa demee neneen mais yàllaa ko dogalee nii incha mais di ñaanal ñëpp rek nekk yàlla yàlla yàlla la yàlla taxaw may la jàmm ak xewel ba ci sama papa bii nii ak sama ñoom yaay ñoom ñëpp daal luñ bëgg rek yàlla na leen ko yàlla defal am ci am benn euh, jeune bi nga xamante ni fi la dëkk ci fi ñu nekk nii euh, moom dañu ko daal di dóor bal donc loolu dinañ ci ñëw ba tànk bi euh, am tuuti jafe-jafe ba hôpital sax la jóge léegi nii ñu daal di ñëw di fas yéene waxtaan ak moom seq waxtaan waa kër gi ki nga xamante ni mooy papa ci moom père ñu ngi lay nuyu la ziar. baax a baax kontaan yow kontaan ñëw bi tamit. leen bu baax a baax. alors boo ñu doon ñëwaatal un ci ci mbir mi euh, naka naka la demee match bi dimanche la woon naka la demee. bon man fi toog dem jàkka ja julli ji timis ba ñëwaat dama ñëwaat toog rek sama doom bi magam magu booy bi ne ma kaay ma gis la fekk xam naa bañ waa kër gi yëg ko ma génn gisuma ko moom bon après ma ni mu wax ma ko moom ma ko waxee ma ko léegi xaama sol sama yére ñu ñu ñu dem. ma génn gisuma ko ci laa woote téléphone ki ñuy blessé bi fekk beneen booy jël ko ba mu ko jëlee bon ma ma laaj ko fu ngeen nekk mu ne ma ñu ngi nii démonique mais ñu ngi nuy dem dalal jàmm ma ne ko la xaw mu ne ma ki daal dañ ko dóor euh, bal bal réel daal la ko police yi man leen foo ma ñu ngi nuy dem dalal jàmm man leen kon maa ngi ñëw ci laa jëlee taxi dem fekki leen dalal jàmm ma demee falaa ko fekk mu nee na falaa ko fekk lu yàgg woon ba ñoom booy ñoo njëkk ña ba ñu ñëw ñun yëgaguñ ko woon ba ñu ñemee fa lañ ko fekk mu tëdd juste ba muy ñëw ak benn frère am moom bon ba ñuy dugg si rek fekk ñu bind ordinance yi joxoon ko booy pour ñu dem jëndi ko tombeek ñu ne net ñu ñëw jël ordonnance dem jëndi ko pour ñu arrêter hémorragie bi quoi daal laa xam ne ci première euh, moment bi euh, première moment bi yooyu yooyu laa fa fekk bon après ba ñu ñëwee toog ma ba ñu jënd garab yi médecin yi jël ko bu ko médecin yi jëlee dugal ko après nag ñu fexe ba téye kii bi. maam ban ban heure la woon. bon moom booy booy nee na ay 19 heures defe naa lañ ko lañ ko yóbbu mais 18 waaw xam naa dina si ñëw mais ay côté lañ ko yóbbu dañ ko yóbbu euh, Dominique Dominique nii nañ ko yóbbu dalal jàmm. benn tànk bi rek la laal wala dafa laal waa dafa kii affaire bi daal nee na dafa frôlé benn tànk bi dugg ci beneen beneen tànk bi. waaw ci cuisse bi nii après après dina ko yëkkati nga xool ko sax. frôlé fii dugg fii affaire yooyu quoi xam naa ni nag mouvement yi ñu doon def ak yooyu bal bi nu muy gaawee ak yooyu xaw ma bal bal daal man parce que d'après li ma dégg ci médecin bi mu muy wax ba pour ñu yóbbu woon ko faan moo dafa ne bon euh, arme à feu daal la wax médecin boobu xam nga li wax léegi dafa bëggoon daal mu xoolal ko sidit bi ci cardiovasculaire pour mu xoolal ko sidit bi ba xam affaire bi laal na ko wala laalu ko quoi loolu moom moo ñu pour dindi af kii bi ci nekk. bi ñu ko yóbbee dalal jàmm ndax premier soins yi gaaw nañ ko def parce que nit ku ku bal laal rawatina arme à feu euh, est-ce que premier soins yi gaaw na. non man ba ma ñëw fekk man ba ma ñëwee fi ma fi ma ko fekk mu tëdd laa ko laa ci ci kii bi nu mu tuddati urgence. fa laa ko fekk ñu tëral ko foofu te bon moment ba muy ñëw man ak moment ba muy ñëw yaakaar naa ni même bu kiiwul tamit amul déclenche bu gudd tamit. seetaan seetaan xaw nañ koo seetaan dal xaw nañ na faa yàgg tuuti kenn laalu ko xaw na faa yàgg tuuti kenn laalu ko loolu léegi nag moom après nag li ci topp nag moom wax dëgg yàlla am na lu rafet lu ci topp yoo xamante ni acte yu rafet yu noble yoo xamante ni médecin bañ fa fekkoon moom def na ko def na ko ci quoi affaire yooyu man xaw ma dafa moom moom médecin bi xaw ma dafa yéex a yëg affaire bi xaw ma nu mu demee noonu waaye daal après moom def na ci ay yu rafet sax même ambulance bi mooy yóbbu bi ñu war jëlee ci hôpital bi yóbbu na ko foofu foofu fekku ne fa ambulance mais def na lu tout pour ma am ambulance pour mu mun ñëw yóbbu Fann loolu tamit moom médecin bi def na ko ko koy santé di ko gërëmee quoi moom waaw. bi bi ñu demee Fann après si lañ dañ doon génnee tànk bi li si nekk euh, arma. léegi nag ba ñu demee bon ba demee Fann bu ñu accès toog fekk na ñoom band nañ ko euh, sama doom magam bi fekk am benn xaritam. kii benn xaritam médecin fekk médecin yi foofu dañoo ne ma woon léegi comme arrêté nañ kii léegi Fann nga war a dem léegi jë jëlal taxi nga dëgal ko ci nga yóbbu ko Fann ba mu woowee magam bi xaritam bi benn booy bi ñuy wax Babacar Sam médecin la mu ne ma bu leen nangu bu leen ko nangu dugal ci taxi naan yéen a ngi koy yóbbu Fann na ngeen fexe ñu jox leen ambulance bu ñu amul ambulance ngeen wut ambulance privée ngeen fay ko mu yóbbu leen Fann mu bindal leen kayit ngeen yóbbu ko Fann bon bu ñu waxee loolu ba mu waxee loolu ba ñu ma waxee loolu ma ñëwaat wax ko médecin bi ma ne ko man mënu ma koo yóbbu ni c'est parce que il faut nee na il faut ma am ambulance am sama beneen xarit tamit dentiste la bon mu ne ma fexe leen ba bu leen koy yóbbu na bind kayit nañ leen dugal ci ambulance yaa ngi dégg moom it mu waxaat la même chose comme li xaritu sama taaw bi wax quoi ne ma léegi moom it li mu li li li la kooku wax loolu ngeen di def ut leen médecin ut leen kayit na leen bindal kayit nar ngeen ut ambulance ngeen yóbbu ko sinon bu ngeen demee kenn du ko laal te boobaa day gën a nekk problème te kee def na woon sax na fexe ba deret bi dina taxaw ba pare balaa ngeen koy dugal ci ambulance naan yéen a koy yóbbu loolu daal moom loolu. deret bi lu bari. ah dafa sañe lu bari dafa sañe lu bari dafa sañe lu bari bañ demee foofu tamit bon bañ demee dugg bañ demee ba faan dugg tamit waa ji dafa daf ñoo génnee quoi mais fi ñu taxaw. fi ñu taxaw di ma ma taxaw jàkkaarloo ñoom génn naa fi ma taxaw bi ñu te dellooyee bunt bi vert la nii rek boo xam ne da ngay gis euh, affaire yi quoi léegi nag moom mun na ci euh, tànk booy bi nag moom woon na trop sax métti woon na trop parce que bu bu bu yuuxoo ba ma yëg rek xam naa ni métti woon na quoi wala na yuuxu man ma yaakaaroon ni sax bon woon na daal li ma la mën a wax. mën na dox si tànk yi. non donc foofu longu ko. parce que affaire bi même démb sax dañoo mujjoon demaat fële pour defi rajo xool ba xam dafa laal yax bi wala laalu yax bi parce que dañoo delluwaatoon euh, comment dirais fan waa ci cardiovasculaire bi mu ne na moom daal sidit bi actuellement nii dara new ci léegi nag mu doon xalaat est ce bi laal na yax bi wala laalul yax bi quoi léegi nag il faut ngeen def rajo ngeen xool ba xam laal na yax bi wala laalul yax bi ci delluwaatee nag def fi rajo mais affaire bi rajo ba mu génne laalul yax bi quoi li nga xam naa douleur beeg yooyu rek moom moo fi des quoi mais sant yàlla bu baax. ndax euh, du ñàkk ñi nga xamante ni ñoom yaay AS Pikine ñoom jël euh, jóg nañ ñëw seet si laak yooyu euh, xam naa bu dee mën na nekk moom bu ci mënee sànni ñaari kàddu lu tax ñu ñëw du ñàkk am na ñoo war a gërëm a sant rawatina ñu def seen déplacement ñëw. ñëpp nga sant xam nga boo amee métit boo amee métit rek bokk kook boo amee métit rek bokk kook bokk ñëpp rek métit bi day wàññeeku daa mu métti métti day wàññi même bu doon deela sax day wàññeeku waxuma la nag gaañu gaañu sant yàlla AS Pikine tamit wax dëgg yàlla ñun man de man man personnellement man awma seen pay quoi parce que acte bi ñu def rek dafa noble quoi parce que dirigeants yi ñoo fi njëkk ñëw ci même bi affaire bi amee kët ba ma nekkee dalal jàmm ku ñuy wax fàlloo te bon appel am jógul ci man quoi chaque instant mu may woo chaque instant mu may woo bon tamit euh, bu ñu xëyee ci suba gi ànd na fi ak euh, manager général bi la ñuy wax ak keneen ke dama fàtte tur bi ñuy Cheikh Mbacke Thiam ak euh, keneen ki dama fàtte bi may euh, fàllu ak ñoom ñëw nañ fi def acte bu rafet wax dëgg yàlla loolu dong doyoon na ba ñu xëyee suba gi tamit supporters yeeg yenn joueurs yëpp ñëwaat nañu seet si waat léegi nag loolu moom ñun dañ koy santee yàlla c'est parce que nit ki li nga bëgg rek ci loolu nga mën a amee problème daal ci li nga bëgg rek nga mën a amee problème c'est parce que fu mu bëgguloon football kon la doon toog li am foofu du du ko dal en mais comme moom loolu la bëgg tamit lu ci am rek ñun lu ko ci dal rek dañuy dañ koy sant yàlla. est-ce que jar na tamit mas mas bu jeex rek est-ce que jar na euh, ay ay gaz la ko machine moom gaz la ko mën nañu ko comprendre mais ay bal bal réel ak yooyu ay bal blanc est-ce que jar na ko. non jaru ko c'est parce que ama affaire bi dafa mel ni man ni ma ko waxee woon affaire bi dafa mel ni ñoom lu ñu leen sant la quoi c'est parce que ñoom xamoon nañu ni booy ba ñuy ba ñuy wax ñoom dañoo ne li ñu daj li ñu daj jaraaf ba ñu demee àll bi li ñu daj.

AS Pikine ci am ku mu am ndek voilà loolu xëy na moom moo xëy na loolu moo tax mu demee noonu mais yaakaaruma woon ni war na mën a demee noonu quoi ñoom li ñu déployé fii keroog ci force de l'ordre li booy wax nekk ma fa woon damay wax damay wax dëgg mais li booy wax li ñu fa déplacé force de l'ordre bi ñu ko déployé woon foofu keroog match aller bi kon problème mënoon na bañ a amaat fii Pikine quoi bu ñu ko bu ñu ko maîtriser woon foofu rek dina mën a yombaat coow mën a bañ a am fii quoi. waaw ñu bàyyi la nga daanaka leen di masawu waat baax a baax. waaw xanaa leen sant di leen gërëm rek. di wax ni seen liggéey bi yàlla na ci yàlla def barke parce que tamit lii lii lii yéen lii ngeen soxla ko fu information nekk ngeen dem jëli ko boobu ngeen ko jëli jee ngeen jox ko nit ñi noonu daal la noonu la demee mais daal li ma mën a xamal mooy ñi war a aar nit ñi buñ dee dóor nit ñi dama xamatul fan la nit ñi jëm. li ma bëgg wax nag mooy si ñi nga xam ne mooy force de l'ordre nañu xoolaat dañ dawalaat yërmande tuuti dañu xoolaat seen bopp parce que booy bi wax na ko léegi nee la ñoom ñuy jël bal di ko dóor doomi jàmb bu doon seen bal bi seen doom la jëm nañu gàttandu bal ba noonu mu mel ci ñoom noonu la mel ci ñun noonu muy méttee ci ñoom noonu lay mettee ci ñun leen di ñaan rek ñoom ñu war a aar xale yi nañu nañu ah, ñoom nañu aar xale yi ñoom ñu war a aar yi nañu aar xale incident moom ci football France ak Allemagne fépp daf am supporter moom entre supporter mun nañoo xeex xeex xeex ba lu ne am ci ba am ay moor sax mais police day ñëw rek disperse leen xam nga àtte li muy àtte mu jeex mais bu demee bu desutul nag lu police nag li dal ci kaw supporters yi ma man comprendre moo ci dara quoi sant yàlla sant yàlla bu baax comme fii la ko yàlla yemale woon ñaan yàlla yàlla bu mu amati quoi yàlla bu mu dalati kenn yàlla bu mu dalati kenn di remercier tamit boo yi nga xam ne ñoom laa fekkoon ci hôpital bi ñu njëkkoon ko indi boo yooyu maa leen sant fu sant yem laa la wax ni mënoon nañoo ragal mënoon nañoo tiit daw bàyyi ko fa te boobaa doon na gën a métti pense parce que moom même bu fekkente ne blessure bi taxu ko mënu ko woon rey sax moom mënoon naa sañee ba deretam jeex quoi mënoon naa sañee ba affaire yi jeex c'est parce que même léegi lee may jógee hôpital léegi-léeg loolu la ñuy wax dañu bindalaat ay fer yoo xamante ne da ko war a naan c'est parce que nee na kii dafa animé deretam bi dafa wàññeeku trop loolu bindalaat nañu ay fer léegi daal di leen sant di leen gërëm bon di sant télé bi loolu leen gërëm yéen leen gërëm bu baax incha allah. d' accord merci beaucoup merci beaucoup alors ñëwoon seet nga xamante ni moom mooy papa si euh, Aba di jeune bi nga xamante ni moom la ñu blessé euh, par balle si mën a si coow li amoon si diggante Jaraaf ak AS Pikine di wax ne nekk doomu Pikine yi fépp fu la mënti nekk si àddina bi euh, voilà képp koo xamante ni parce que dafay faral di dem di jël ay rendez vous te rendez yi jeexagul ndax tànk yi dañ ko war a waaye dañ ko war a traité ba mu gën a kii donc voilà en tout cas c'est pas facile nga nekk si benn jafe-jafe ñu li dëkk micro ngay wax ñu ngi leen si jaajëfal bu baax baax merci beaucoup